dal ak jàmm

baaraamu tuuma waa nguur gi ñooñu wedd ba mu seet wecci suñu naataango yi di fas yéene loolu kat ñu ngi ko nemmeeku ci tukki nemmeeku bi nga xam ne Macky Sall amuloon na ko ci biir gànnaaru réew mi ci côté Fouta ak tamit Matam loolu ba léegi rek moom mooy ay di njàmbaat ak tamit borom doole yoo xam ne ñu ngi doon dal ci kaw askan wi moo tax sax ñu kat ci ay kaddu ñi nga xam ne nag ci ku jëkk politique joxañ baaraam tuuma ñu jiite réew mi li mel kat dañ koy dem mu set wecc kii di Moussa Tine mu jiite alliance Pencco nee na mel dañ ko war a a ba mu set wecc nee na kat amul benn koo xam ne borom koo xam nekkoon ci a ñaawlu bu baax a baax yemul foofu nee su fekkoon parti politique bu nekk am nga ay nervi boo deful ndànk pëccoo ak jaxasoo dina am te sax mun a indi guerre civile moo tax Moussa Tine ne kat li ni mel dafa garaaw lool bëgg na député jël seen matuwaay laajte nag ab question ñi nga xam ne kat ñoo nekk nag kilifa yi bëgg nañ tamit ñu laaj ci ministre bu njënk wàllu biir réew mi lan moo fas yéene nekk taxawaayam bu leen ni mel mu daal di jeex fii ci biir réew mi. yéen kaay bi di 24 heures tamit jox kàddu bu li ni mel tam daf ko daal di ñaawlu ci yéen kaay bi l'info ba tey Abdoul Mbaye li ni mel nag dafa war a jeex fii ci Sénégal ndaxte kat nekk na loo xam ne dafay tilimal deru Sénégal ba tey ci wàllu Alioune Tine mi nga xam ne moo jiite Africa Jom Center moom xam-xam màcc jëm nag ci wàllu politique fii ci biir Sénégal jox na ci xalaatam ci waxtaan woo xam ne seeq na ko Vox Populi moom dellusiwaat na ci mbir moomu nee na moom dafa ñaaw loolu waaye tamit dafa garaaw kenn nag warul di fay safara ndaxte kat li ni mel wóorul bu tàkkee kenn xamul rek fan lay yem borom doole yooyu ñu ngi fa son ci tukki ne mee ko bi nga xam ne ma Sall mu ko doon amal ci biir gànnaaru réew mi bi mu si nag moom dafa taxaw fële ca Linguère

Khadim Bamba Diagne xam-xam màcc loo jëm ci wàllu koom nee na kat tournée wàllu folklore ak wàllu politique moo ci gën a bëri ñu des ba tey ak wàllu l'info suñu naataangooy dil si waat ak ci kan moo war a wut Moustapha Niass ci bopp AFP nee nañ boo deful ndànk moom lay doon ndax kat Alioune moom mat na ko mën na ko suñu naataangooy nee nañ ndaje mi nga xam ne moo amoon samedi ba la génn nag kàddu yi nga xam ne dafa jib yëpp nag dañ a am na solo lool loo xam ne def na ko ci nag ci wàllu gagné bi nga xam ne mouvance présidentielle mu ko doon gagné ci gox boobu noonu rawatina tamit ci département bu Thiès moom ko am na base politique bu dëgër waaye tamit ñëpp ko xam ci gox boobu noonu nekk tamit ki jiite kàngam yi nekk AFP waaye tamit ginnaaw Moustapha Niass mooy ki nga xam ne kat moo ëpp ndombo tànk ci parti boobu nga xam moo nekk AFP nekk na ministre juróom-ñeenti at am ministère yu yoo xam ne kat jiite na ko bokk na ci commerce tourisme ak tamit transport aérien Alioune Sarr moom yëkkati ay kaddu nekkat ni ànd ak dal waaye tamit tagg bu baax a baax ki nga xam moom moo nekk Moustapha Niass loolu Vox Populi moo ko rotal suñu naataango yi nekk ci quotidien ne AFP mu doon feetal nag ñaar fukki at ak ñaar yi nga xam na ko loolu nag muy amoon fukki fan ak juróom benn ci weeru juin bi nga xam ne moom ne kat ñu a baax ak ñi nga yàq deram waaye nag di gën a fësal taxawaayam ci coalition bi nga xam ne moo nekk Benno Bokk Yaakaar Abdoulaye Thiam moom tey jii nag moo def édito bi dellusiwaat ak ñun ci li nga xam ne kat moom moo amoon ca mosquée divinité ginnaaw bi nga xamee ne kat kenn ci kilifa lébu yi dafa woon kat nañ jàppale lébu yi nag su ko defee ñu daal di gagné élection fii ci biir Dakar nee na ni mel a moytu ci réew moo xam ne kat réewum jàmm kat yi ni mel dañ ko war a moytu ci biir Sénégal Sadio Mané moom dafa may hôpital bu bees tax dëkkam bii di Bambali nekk ci région bu Sédhiou loolu nag démb sax lañ nag inauguré hôpital boobu noonu mu nekk hôpital boo xam ne kat bu mucc ayib lay doon loolu mu ngi am nag ginnaaw bi nga xam ne kat Macky Sall recevoir woon na ko ci wàllu audience audience boobu sax Sadio Mané waxoon na kat bëgg-bëggam ñu yóbbu fa ñoo xam ne ay docteur la liggéey bi nag ñu ngi ko xayma ci koppar rek ci trois cent cinquante millions ci xaalis doon ko nag ci atum 2019 mu nekk kàddu boo xam ne a Mané may na ko waa Bambali ginnaaw loolu sax moom ci yéenekaay bi la Sadio Mané di xamal ne moom kat wareefam la mu tabax nag hôpital fële ca Bambali ci wàllu tàggat yaram assemblée générale élective bu fédération sénégalaise bu football jàpp nañ ko juróom-ñaari fan ci weeru bi nga xam ne mu la ñu dëgg mën si loolu nag commission électorale moo ko xam ne ci ab communiqué ñu jàpp ne kat boo defoon nag dina am xëccoo bu tar bu am ci diggante Madiou ak tamit maître Augustin Senghor loolu yéeni bi sart moo ko fësal ci xëtam mu njëkk li leer ba leer moom mooy fi toll nii Madiou rek moo samp ndëndam ci langue gi Augustin Senghor ba léegi kat moom waxagul fan lay féetee donte sax am na fukki ligue ak ñett yoo xam ne kat seen bëgg-bëgg moom mooy mu nekk candidat consensus bi ñaar fukkeelu bés bi ak benn ci wàllu Pikine mi ci topp génération fu mu jël troisième ak Jambar mu jël quatrième ñëpp dañoo gagné loolu yéen kay Abdou mu ko fësal ci xëttam mu njëkk nee na kat ñeenti équipe yi ku ci nekk war ngaa mën a jël championnat bi de soleil di fësal ne ñeenti équipe yi jiitu yëpp ñoom dañoo gagné seen match yi amoon ci championnat bi mbokk yi jaa jëf ba beneen yoon incha allahu rabbi bonjour à La politique, le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce lundi. La violence dans l'espace universitaire de plus en plus inquiétante. Selon le professeur Malick Ndiaye, il faut des mesures. L'invité de l'émission Objection hier sur Sud FM Sen Radio s'est aussi prononcé sur d'autres sujets d'actualité. Sud Quotidien s'arrête sur les violences perpétrées par des nervis. L'opposition accuse, la majorité recuse. C'est le titre du comme les violences perpétrées par ceux-ci sur certains citoyens lors des tournées économiques du chef de l'État au nord du Sénégal continuent toujours de soulever des vagues au sein de la classe politique et de l'espace public tout court. Si du côté des opposants, on condamne avec fermeté ce recours aux nervis comme avec Moussa Tine de l'Alliance démocratique Pencho, pour qui de telles violences sont inacceptables dans un état de droit. L'on dégage en touche, par contre, chez les partisans du chef de l'État Macky C'est le cas de Zator qui recuse toute présence de nervis dans la sécurité du cortège présidentiel. Dans le quotidien Réumi, Moussa de l'Alliance démocratique Pencho précise que la présence de nervis est inacceptable

du quotidien L'Info, Abdou Mbaye plaide pour la légitime défense. Sur le même sujet, Alioune le fondateur d'Africa Jom Center, observateur très averti de la scène politique sénégalaise, alerte dans Vox Populi dans une interview accordée à nos confrères. Il déclare qu'il faut éviter de jouer avec les allumettes dans un pays où il y a du gaz et du pétrole. La présence de ces nervis a été notée lors de la tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays. Sur aux populations du Djolof de l'électricité ainsi que la construction de routes et de forages dans leur localité. Il a fait cette déclaration à Linguère devant une foule immense venue communier avec lui lors de son passage dans le département. Selon le ministre coordonnateur de la communication de la présidence de la République et porte-parole de l'APR, Seydou résumer cette tournée à de la politique est un aveu d'impuissance. Seydou Gueye s'est prononcé dans le rédaction. Nous restons avec nos confrères qui reviennent sur la succession de Moustapha Niass à la tête de l'AFP. Alioune en pole position, c'est le titre du journal. Selon nos confrères, lors de la rencontre de samedi dernier au regard des profils qui ont été dressés par les intervenants, Alioune se présente en pole position pour ne pas dire que son profil a été plébiscité. Maire de la commune de Notre Diabas, qu'il dirige depuis deux mandats et qui a été d'un apport décisif dans les succès électoraux de la présidentielle dans le département de Thiès. Il jouit d'une base politique large et solide. En plus d'être le coordonnateur des cadres de l'AFP, il est après Niasse celui qui a le plus de responsabilités et de vécu étatique. Il est ministre depuis 9 ans et occupe les portefeuilles importants comme le commerce, le tourisme et les transports 16 juin dernier. Une grande fête a été organisée samedi dernier à la permanence du parti pour communier avec les militants venus de toutes les régions du pays. Une tribune saisie par Moustapha Niasse pour solder ses comptes avec ses détracteurs avant de renouveler son engagement aux côtés du chef de l'État, Macky Sall. Abdoulaye signe l'édito du jour dans Quotidien. Mon confrère déplore la maladresse contenue dans les recommandations du chef supérieur à la mosquée de la divinité. Il a été recommandé aux électeurs des différentes localités de la région de Dakar de soutenir les listes conduites par les candidats lébou. L'attaquant international de Liverpool a officiellement offert un hôpital à son village Bambali. dans la région de Sédhiou. C'est hier qu'il a posé l'acte inaugurant l'infrastructure sanitaire, une inauguration qui intervient après son audience avec le chef de l'État. Selon le quotidien sportif Stade, Sadio Mané avait demandé au président Macky Sall un personnel médical. Les travaux de cet hôpital, estimés à millions de francs CFA, ont été lancés en C'est le énième cadeau offert à ces populations. Sadio avait construit une mosquée et un lycée. En sport, l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football aura lieu le 7 août prochain, annonce la commission électorale dans un communiqué vers un duel Madi Maître Augustin Senghor, écrivent nos confrères du quotidien sportif Stade. Pour le moment, seul Madi Touré, président de Génération Foot, a officiellement déclaré sa candidature. Maître Augustin Senghor, président sortant, n'a pas encore candidaté, même s'il est pressenti Teungueth FC premier, AS Pikine deuxième, Génération Foot troisième et Diambal quatrième ont tous gagné. Selon nos confrères du quotidien sportif SAD, c'est le statu en tête avec quatre équipes qui peuvent prétendre au titre. Les quatre premiers au classement se détachent, selon le quotidien national Le Soleil. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.